ndogal bi njiit di jël tej jumaa yi nag file ci ndakaarook li ko wër mel na ni jëmmal nañu ko li koy firnde julli jumaa bu tey jile nag antuwul file ci jàkkay omarien yi jafe na nga gis fi ñu ñëw ngir matal boble farata décision bi jël nañ ko te li ko tax ñu jël ko mooy feebar bi nga xam ne moo law ci àdduna bi yépp ba dugg ci bi ci lo biir Sénégal ñuy moytu nag ci mbooloo yépp ñu dàkkaloon ko mbooloo juma yeeg mbooloo jàkk yëpp dañ ko dàkkal bu jëmi jamono fii ci bëréb bi. ca wet ga nag juma bi ñu duppee juma Saraxule nekk rek fii ci avenue Malick Sy ci Medina ñenn ci waaye jullit yi ñoom ñëw nañu ngir matal la julli aljuma ji waaye mujjuwul antu ndax takk der yi nangu lu ñu leen ko. nañ delo ci ñu xel xamne aduna day jeex ta aduna bi wallahi kuko top top ambiance bi wallahi bo day da ko rëcc wamal ayatu dunya ila mataal xuróor lii moom ñaaw na lool te l'islam santani ko ñuy wax ne l'islam da ka santani dañuy wax lu la neexat l'islam lu santani moy jàkk yu juma yi nañ leen dundal gude bëccëg ne wata nor muy métti muy neex muy nakat jàkk yu juma yi mom kenn amul amul droit tejj ko nda jàkk yàlla la jàkk yàlla kenn du ko tejj lu métti métti waruñ ko tejj maanaam bu fekkoon dañu rob par par personne sax waruñu te jàkk yi ndax ku leen ku leen jàkk la nekk kenn xam mu ne bu doon leen dañu mujj jàkk jee ñu ne dañu sele jàkk jee li am ci réew mi metti na baar tëjuwul sabar arrêté wul yaa ngi may dégg amul boîte bu tëju amul dara mënuñu jël deneen leneen lu ñu mën a valider lu dul nañu tëj jàkk ji ëllëg limay tiit sama bop man moy buñ taxawé ci kanamu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu nan ko sa xeet kérok amna aljuma jo xamantene amna décret bu génn ñom julli wuñu té Cheikh Ahmadou Bamba and ak ñom xeex ak ñom lu toll ak juróom-ñaari at juroom ñaari wër té téwul mom da taxawal julli ci géej gi daal la wax tubab tubaab ñëpp xam nañ ko mam limamu mu ngi fi yoof randal géej gi dëkk njabotam tay ñëpp di fekk mam Alaaji Malik ak ñom li tax ñu tëj jàkk ji man jaaxal na ma. gis ngeen nooy yi ni mu nekkoon sama dund julli noonu la bokkee sama dund man dee ci jàkk ji moom gën a dee ci marché bi ak dee fa la damay dee. adduna bi yàlla daf kaa sàkk mu nekk lu gàtt gàtt mbokk yi yàlla boobu la iqtarabati saa yàgg na waaye soo xool li ngeen passé seen dund yàggatut tabaski fàtte ngeen ko korite fàtte ngeen ko li ngeen mujjee lekk sax ñett si yoon fàtte ngeen ko mbokk yi adduna dafa gàtt ñu ñu bañ ñu julli yàlla wax war kaw maa raakee la yàlla wax an dem leen fa ñuy rukoyee ngeen rukoyee fa mbokk man dee ci jàkk ji man moo ma gënal dee ci marché bi wala mbokk yi mbokk yi. ñenn ci ñi le nag kenn mënu leen woon tere julleel seen bopp ci seen kàddu sax ndogal gi kilifa yi jël ci wàll wi njumte bu mag a mag la. xamatuma ban senegal la ñu nekk xamatuma ci ban àdduna lañu nekk mënumaa taxaw nag naan man jullit laa wax ko sax génn fi nga bokk la wax dëgg neex yàlla ay doomi jullit lañu. ci ëttu jullit la ñu juddoo ci kër jullit lañ ñu yaree xamal ñu ñu tëj suñu kër yi wàcc suñu lal yi tëj suñuy néeg sax a gën tëj jàkk ji ci suma xalaat bu gàtt tëj suñu néeg ak suñu kër yi moo gën junni junni junni tëj jàkka ji. décision bi dañ ka teel a jël ndax parce que état bi su boppam yeggaguñ si kaabo boobu ndax bu ñu ba yegg si kaabo boo xam ne fa tabaarakallaahu mooy fa tabaarakallaahu yàlla ñuy suturaal bu mu amee ba léegi amul kenn koo xam ne bakkanam des na si ñu ngi ñaan ñu ngi di jàng alxuraan jàkka yu jumaa yi mooy dellukaay julli julli mën a mooy si jàkka yu jumaa yi ndax bu tiitee si jàkk yi lay dellu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu mosaan a jaaxle wala mu mos a am problème day woo na ko adina yaa Bilal bi mooy yow bilaal kaay nga kaay nga noddu moo noddee ñu julli ndax julli ku ko def doo am stress julli ku ko def dangay am jàmm julli ku koy taxawal soxol day feex julli boo koy def yàlla da may naataange may la xiwal kon julli googu tey buñ ko bàyyee erreur bu mag la danger bu mag la lislaam nanguwul ko. ñi lay jàpp ba tey ne ay mbir yu gën a doy waar te jumaa mi ngi xew ci réew mi te kenn waxu ko. rumeur yi bëri na maa ngi dégg ñu naan julli bi bu ñu paree nuyoo ci. marché bi mu ngi ci maa ngi téye micro ya nga caméra lok man bu do ne amna ko dina la ko pass yow boko amé bu ñu tamit li ñuy ci julli gi mu ngi ci wax ji man njit njit njitu diiné njitu diiné lay waxal ñom lay sakku ñaan nañu xolaat ci ban Sénégal lañu nañ dalo sen xel xamné ne yamul fi nañ dalo sen xel ñun ñëpp. ay julit leen ay mbokk leen nañ xam ne lii yàlla suñu borom tabaaraka wa taala moo ko sant doomu adama yi ku ne am nga droit dem si jàkk yu jumaa yi julli noo bëgg a jullee ñu sécurité leen kon autorité yi ñu ngi leen ñaan ngir yàlla lu mel ni bu mu amati. boo demee Palestine gée da nga naan nekk la julli gars yi dal dóore ay bomb nga nga ko ne la julli ëllëg da nga dellusiwaat jàkk dafa doon loo xam ne mooy a militaire bi ñu war a armé woo pour ñaan feebar bi dem. moy kaa suñu mooy suñu kaamante ñun julit bi xam fa dañu war armé wu ñaan xex xeex feebar bi léegi nag jàkk ji nga war a kiyee man ma dé ci bir jakk ji moo gënal më dé ci marché bi man ma dé ci bir jakk ji moo gënal ma dé ci bir kaar bi may ñëw ci kaar la duggu parce que man la cinq mën na cinquante personnes ma nga dëkk ñu noy man la 30 minutes jakk ji même pas 5 minutes ma para dem na jublu ci allah ñaan yalla waye duñ ti jakk yi nu ni ñaane allah mbokk nuñ koy ñaane mu tegg balaay mbokk yi nuñ koy ñaane mbokk yi mu tegg balaay mbokk yi nañ ñaan allah nañ ñaan allah yàlla yombal mbir yi yàlla yombal ko waaye ñun lu ñuy xalaatee naan lañ tëj jàkk yi ñun ñëpp ñoo war dem ba ci àll ba def astaghfirullah yu bari li am ni suñ bàkkaar yee bari nañ ko jéggul allah wala day tëj jàkk yi ki fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars gouverneur bu ndakaaru ci ab arrêté bu mu jël mi ngi ciy xamle rek ndogal li soxal tëj ci jumaa yi fii ci ndakaaru ak li ko wër dale ko bésub aljuma ji ñaar fukki fan ci weerug mars ndogal loolee nag li ko wund moo di rekk bañ jàngoro korona coronavirus bi wasaarewu ba mëna a wàll askan wi